expliquer leen Air Sénégal eh, xam naa ne duma mën sore trop ci wax ji parce que dafa am ay kàllaama technique yoo xam ne ne eh, duma ko mën expliquer waaye li ci ëpp solo mooy eh, expliquer leen xamal leen fu Air Sénégal nekkoon ak fu Air Sénégalu toolu Air Sénégal compagnie la boo xam ne ne. ñu ngi ko door euh, amagul juróomi at euh, man sama wàllu bopp man miy jiite Air Sénégal maa ngi fiy soog a def barki démb laa fi def benn at euh, bi ñu ñëwee fekk nañu compagnie bi nekk ci situation boo xam ne ne métti woon na lool waaye la ko indi du coobare ña fa nekkoon waaye dafa amoon ay gàllankoor yu ci rax yoo xam ne ne boo ko seetee saytu ko daa xam ne ne Euh, Covid bi jaar na fi euh, carburant bi nga xam ne moom la ñuy def suñu avion bi yokku ak guerre yi am Ukraine ba nga xam ne ne euh, compagnie bi tolloon na ci situation boo xam ne presque arrêté woon na gàllankoor yooyu yëpp nag demoon na ba indi lu toll ni juróom-ñaari milliards yuy compagnie bi di ñàkk weer su ne dañu dikkee Euh, ma ci profité di gërëm sama naataango yi nga xam ne ñoo ma fi jiitu maanaam commandant pilote Lamine Sow euh, kii di Philippe Bonne ak kii di Ibrahima Kane nga xam ne moom laa wuti ci place bii ma jël tey euh, ñu def fi liggéey bu mucc ay boo xam ne wax dëgg yàlla dañ leen ciy gërëm di leen ci sant parce que bu ñu àndul nag xarañ soo suñuy wax defe naa ne compagnie bi nga si nii tëjoon na suñu borom subhaanahu wa taala jàppale ñu ba ñu bi ñu dikkee ñu am euh, tey président de la république boo xam ne euh, wax dëgg yàlla euh, xarañ na lool ci Air Sénégal ndax pas-pas bi mu ci wone ah, teg fa nag aussi ministre du transport aérien Doudou Ka boo xam ne ne man fanweeri at ngi nii ma nekk ci aviation ah oo dëgg yàlla li mu ci li mu ciy daj de euh, musuma ko gis ku ci daj noonu ci euh, wàllu transport aérien bi ñu ñëwee ñu fekk perte yu métti yooyu mu indi ay cabinet yu xarañ yu nekk ci fii ci àdduna mu ñëw saytu bu baax li fi nekk ba diggal ñu nag ñu am yoon bu ñu topp pour wàññi perte yooyu ba ëllëg ak si biir ñu mën am euh, compagnie boo xam ne ne Euh, dina mën demal boppam sans mu am ñàkk-ñàkk yu métti yooyu ma ma may ñaax askan wi ak doomu réew mi ñi nekk fii ak ñu nekk bitim réew ne Air Sénégal euh, seen alal suñu alal la ndax kat euh, Air Sénégal amul kenn ku ci rax lu dul yéen amuñu partenaire bu bitim réew ba tax na tey lépp loo xam ne def nañ ko lu toll nii tarfatal ay nii ci lu ñaaw wala ci waxin goo xam ne ni da ko jëmale ci Air Sénégal wala nga jëmale ko ci doomu nit buy liggéey Air Sénégal sa bopp ngay gàllankoor sa bopp ngay gàllankoor ndax dama lay jox benn exemple bu fekkee da nga dikk ne Air Sénégal baaxul wala Air Sénégal dafa mën a tardé wala Air Sénégal dafa dafa dafa dafa doxul wala nit ki ci nekk dafa am ay ay ay ay. ay doxalin yoo xam ne ne jarul wóolu du ñoom ngay gaañ Air Sénégal ngay gaañ te boo ko gaañee bu tëjee si yow la tëjal ndax fepp yi nga xam ne danga koy fay ci ay taxes ci moom la ñuy jël di ko doxal Air Sénégal donc mooy ñaax wax dëgg yàlla euh, doomu réew mi nga xam ne ne tey bu ñu tolloo foo xam ne ne am na lu euh, xajamal seen xel ci mbir mu Air Sénégal am na fi service communication boo xam ne ne xarañ nañ loolu nekk biir Air Sénégal ma leen koy wax yi tamit. képp koo xam ne am na ci loo xam ne ni war nga ko bëgg ci Air Sénégal bés ni ki tey boo ñëwee Air Sénégal euh, danañu la ko euh, xamal won la ci ba nga xam ne dina leer ci yéen du ñu fi làq dara Air Sénégal ay roplaanam toll na kese ci juróom benni roplaan euh, ñaari roplaan yoo xam ne dina jël ñaar téeméer juróom fukk ak ñeent ci place ñooñu ñooy dem Paris di dem New York ah mu am yeneen ñaar yoo xam ne ay Airbus A321 yi ma njëkk a wax Airbus A330 la yoo xam ne yëpp Air Sénégal la ko moom am yeneen ñaari avion yoo xam ne Airbus A321 la mu am téeméeri paas ak juróom euh, fukk ak juróom ci place yoo xam ne ñoom ñooy dem Milan di dem Marseille di dem Lyon di dem Barcelone di dem fu nekk mu am yeneen ñaari Airbus A319 yoo xam ne téeméer ak euh, ñeenti fukk place lay jël yoo xam ne ñooñu moom mooy dem Abidjan di dem Conakry di dem Bissau di dem Cotonou di dem Douala di dem Libreville ak ñaari avion yoo xam ne moom euh, juróom-ñaari fukki place la am mooy yi nga xam ne moom la ñuy faral di yóbbu Ziguinchor Cap Skirring Banjul Nouakchott ndax yooyu ñoo gën a jege ak île de cap maanaam Praia ak Sal ci mbirum euh, réseau bi maanaam fi avion yi di dem ak li Air Sénégal di doxal fas yéene ni ñuy yokk suñuy tànk ci mbirum réseau ndax euh, suñu mbokk capverdien yi nekk fii ubbi nañ leen deuxième ligne boo xam ne mooy sàll te liñ ci séntu mooy yokk ko ak ñoom euh, dem ak ñoom ba Boston ndax ñoom dañu fa am ay doomu réew yu nekk yu dëkk foofu ak euh, Providence foofu la ci États-Unis fas yéene nañu aussi ci suñuy plan de développement maanaam liy sukkandili koom-koomu Air Sénégal euh, yéene nañu euh, Air Sénégal dem Jedda ndax suñu mbokk pèlerin yi nga xam ne ne euh, dañuy umari ji fii ak ñetti weer bu ma juumulee Eric ba ba ba ca des mooy mawlud bii di dikk fas yéene nañu aussi commencé doxal suñu avion yi ñuy dem Fès ndax yóbbu leen directement au lieu que ngeen di jaare Casa ngeen jóge Dakar rek dem directement Fès euh, fasciné nañu aussi yokk suñuy euh, vol ca New York parce que ñun ñaari yoon la koy def par semaine fasciné ñu yokk ba ñetti vol ndax euh, liggéey yi nga xam ne ne waa Air Sénégal suma ñii may liggéeyal Air Sénégal nga xam ne ay jàmbaar lañ ñu xarañ la ñu wax dëgg yàlla ma leen di gërëm di leen sant fexe nañu ba tey Air Sénégal perte yi ñu doon def yooyu yëpp mu daan juróom-ñaar wàññi nañ ko ba fi ne nii àgg na ci ñaar ñaari milliards euh, jëmale suuf te bu ñu doxalee nii euh, yaakaar nañu fi ak juróom-benn weer Air Sénégal dootul amati perte euh, bu loolu weesoo tey Air Sénégal bu ñu fàtte ne juróomi at kese la am waaye Air Sénégal dafa yàgg. 1960 ba léegi Air Sénégal dafa mës a am fii ci dëkk bi te nit ñoo ñu nekkoon biir Air Sénégal nga xam ne man liggéeyee naa fa euh, ci dawal katu laa ba gis si nii euh, ñii nga xam ne ne ñoo nekkoon ci compagnie ñooñu xarañ lool muy Air Sénégal Sonatra ñu leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ndax ci ñooñu laa jàngee lu bëri ak ci lu ma xam nii Air Sénégal interna international dikk ñëw remplacé ko. Sénégal Airlines ñëw dikk remplacé ko euh, waaye ba ñu dalee am compagnie ba léegi musuñu am compagnie bu toll nii musul am gis ngeen Air Sénégal bés bu tëjee ñaanu ma ko waaye bés bu tëjee balaa muy ubbiwaat di ngeen toog juróomi at compagnie bu ñu tëjee balaa ñu koy defaraat dina toog ñeent ba juróomi at ndax ubbi compagnie dafa métti ubbi compagnie dafa métti ndax autorisation yi nga war a am sax pour dem benn dëkk di nga xaar lu yàgg balaa nga koy am. balaa ngay am avion balaa ngay am ñi lay leban wala ñi lay jox pour que nga jënd avion wala nga loué avion dafay métti ba tax na bu compagnie bi dajee tey balaa ñuy amaat dafay dafay dafay doy waar. ba tax na loolu moo tax manaan Air Sénégal juróomi at la am waaye fi mu àgg ni musul àgg fi musuñu am compagnie bu mel nii ba nga tey dañoo ràññee ràññee soo xam ni démb laa jógee marok fekk ñu décoré ñu foofu meilleure compagnie Afrique de l'Ouest loolu nag. ale yow na seen liggéey la liggéeyu président de la république ak ay naataangoom yi nga xam ne ñoo ci jàpp ministre des finances ministre de l' économie ministre du transport aérien waaye surtout yéen yéen ñi ngeen xam ne ne euh, euh, ci seen i fepp yi ngeen am la ñuy fab daal di ci dugal Air Sénégal parce que yéen ay actionnaire Air Sénégal ngeen amul benn doomu sénégalais nga nekk ci nguur gi nga bañ nekk ci nguur gi te bokk Air Sénégal donc képp koo xam ne def nga ci naka sudul noonu sa bopp nga ko def loolu daal laa amoon lu ma leen di wax xam naa bu ñu demee ba ci kanam ci diggu waxtaan bi ma déglu leen di nu ñàkk maam ay euh, leeral yu ma ci def maa ngi leen di gërëm.